yi ginnaaw bi nu sant yàlla suñu boroom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam waaye bala muy leeral nuyoo yooyu nee na ci jataay bi ñu toog mu ngi fàttaliku jàmbaar lislaam ji nga xam ne li ko waroon ci lislaam lépp def na ko li ko waroon ci réew mi lépp def na ko li ko waroon ci yoon wi lépp def na ko muy woy juróom bi nga xam ne moo ko bàyyi liggéeyam bi mu taw muy Cheikh Saalihu Mbacke yàlla na ko yàlla doole ko ay leer mu ne itam yow njiitu réew mi ñu ngi séddoo ak yow naqar di jaale boppam di la jaale ay bokkam yoo xam ne dañu wujji seen borom la muy Khalifa Fass Touré kenn ki biig la ko yëpp ginnaaw bi muy egsee Ndakaaru muy alxaaji Ousseynou Xaar Seck xalifa maam Amari Ndak Amari Ndak Seck mi ngi koy jaale boppam di ko jaale di ko jaale di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale lislaam yëpp di xam ne ne moo yéen yéen a ko bokk yàlla na leen yàlla doole ay xéewal fa ñu tëdd yow njiitu réew mi sëriñ bi nee na tànk yi mu dox dafay sof rek waaye nekkul lu mu sos ndax ay kilifaam yi ko jiitu woon tànk yi lañu daan dox muy ay wayjuram dañ daan sol seeni dàll di ñëw ci bi di nemmeeku ci jullit ñi di nemmeeku ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba nee na Cheikh Abdou Lahad Mbacké yàlla ko yàlla doole ay ngërëm ak leer defoon na ko moo tax mu sol dàllam ñëw fekk ci taalibe yi Euh, fekk si la bi mu ñëw nag nee na li mu àndal du ma ko lim loo ndax su ma ko jëmee lim damay juum waaye tey yoonu murit kenn desul ñu bokk ci maaram kenn desul banu balla kenn desul cheikh yi àndoon ak Cheikh Amadou Bamba seeni sët kenn desul waaye dana ci tudd ki nga xam ne mooy loxoom di wéttalam muy sëriñ Cheikh Matulay Mbàkke nga xam ne ay ndawam ñu ngi ci jataay bi ndax ngant lu ko te ñëw mi ngi lay xamal ne mi ngi ci wetam di ko jàppale di diisoo ak moom te du jóge moom ci dara waaye mënta ñàkk tudd sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy ay tànkam fu mu war a dem moo ko fay demal moo saytu bis bi ba mu mel nii mook bokkam yu tedd yi nga xam ne ñoo toog ci barab bi mi lay xamal ne nag ànd gi mu ànd ak mbooloo muy bokk yi muy bi yi muy ñëpp dafa am lu muy wundu mooy yoonu murit benn bopp lañu te lool mooy mooy li nga xam moom la na Cheikh batale doon benn bopp benn bopp lañu te ci lañ fas yéene sax yoonu murit itam euh, nangu kilifteef ci lañ fas yéene sax kuy sa kilifa nga jox ko cëram mooy li nga xam ne ci lañ fas yéene sax bu faw yoonu muy tam yoonu yëngatu la mooy liggéey ak jaamu yàlla ñu la koy seeral xam ne taalib yépp loolu mooy seen yitte loola mooy seen bëgg-bëgg waaye nee na ngan gi am na ci moom solo am solo koo xam ne faaw mu leeral ko ndax la ci jëkk mooy da ngay taalib Sëriñ Tuubaa la ci tege mooy dangay xaritam te itam dangay ngay da ngay te itam sa loxo ci biir Tuubaa sa loxo ci réew mi gis na ko seere na ko te itam ko waxal yàlla mën na ko seere loolu moo tax ñëw bi am solo am solo lool ci moom nee na nag ñaari guddi yi muy fanaan ci ndakaaru da koy fàttali lu bari da koy fàttali ñaari guddi Cheikh Ahmad ci ndakaaru nee na ñaari guddi yooya moo jur ñaari guddi yi nee na kon kuy wéeru na nga wéeru ci yàlla kuy lebal na nga lebal yàlla kuy jëf na nga jëfal yàlla Cheikh Ahmad Bamba nëxut yàlla ci doon gi mu doon jaamub yàlla waaye yàlla nëxu ko ci nëxu ko ci moom gi mu ko moom nee na moo tax yoon yu am yoon yu am na solo ci moom nee na nag jamono ji toll na foo xam ne ku dajale mbooloo te waxoo ci xat-xati jamono ak jafe-jafe yi du ñu xam lu muy ba tax na xat-xati jamono ji dafa laa bëgg a seeral ne ab jullit dafa am lu ko yàlla digal su xat-xat amee ab jullit la ci jëkk mooy ku xamul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge mooy nañu dellu ci yàlla nee na nañu dellu ci yàlla tuubal yàlla te xam ne lu nu dal noo ko def waxara fasadu fi lbarri walbaxri bi ma kasabat aydi naas la yàlla wax nee na li xew ci jamono ji noo ko def suñu bopp kon nañu dellu ci yàlla te kat yàlla su doon toppanteeg nun kon mu gën fee ñaaw waaye ndox bi nga xam ne yàlla du toppanteeg nun wa ma asabakum min musibatin fa bi kasabat aydikum way wa yaafu an kaseer kon yalla du ak non way nak nanu delu ci yalla tobal ko te baña yam ci di wax astaghfirullah ñepp xam nañu charti nañu tobal yalla te mu doon deug ci nun fasiyene yéene mel ko melni ko xam da nga aw xal te do ci do ci del kon jaxani ak pomi ak warante yi ak jikko yu sew yi nañu ko bayyi te yalla rek tax te jaamu ci yalla kon tobal yalla mo ci jekk ba ca tege mooy jafe-jafe yi metti na waaye nanu sàlloo muñ ndax yàlla moo wax ne inna allaha maa sabirin man ñi muñ ñoom laay àndal te it ab jullit day wax rekk ne gëm naa yàlla rek mu jeex déedéet yàlla da koy teg ay nattu seet ba xam li muy wax dëgg la wala déet or bala ñu koo takk danañu danañu ko lakk ci safara dóor koy ay martu waaye buñ ci noppee mu mel na mu war a mel kon nanu sàlloo muñ te xam ne yàlla ñiy muñ rek lay àndal ba ca tege mooy nanu dëkk yàlla sunuy loxo nag di ko ñaan ndax li nu bëgg te mënuñu koo ñàkk te mënuñu koo jox sunu bopp yàlla rek moo ko mën a joxe kon nanu dëkk yàlla sunuy loxo di ko ñaan li nga xam ne mooy sunuy itte yàlla mooy ki nga xam ne Sëñ Tuubaa yàlla mooy ki nga xam ne doomu aadama doomu aadama lu mu bari la bari la boo saxee dàq dàq ci di ko ñaan bu yàggee mu jéppi la yàlla nag mooy ki nga xam ne loo bari la bari la بوسخو داك كي ديكو نان بو ياغي مو ميرال هو الذي ان لم تساله غضب وغيره اذا سالت يغضب كوكو مو يالا كون نانوي نان يالا تي كات نان موي غانا يول جوليت الدعاء سلاح المؤمن تي يالا مو وخان كامو تان نيكو بوني بوني لاجي نلا نلا انا سا بوروم نيلن مانغو تي كوما نان مو مايلا واذا سالك واذا سالك عبادي عني فاني قريب ujibu daawata daa'i ida daani kon nañu dëkk yàlla suñu loxo te xam ne moom rek moo mën a soppi jamonoom ba ca tege mooy nanu góorgóorluwaat laxasaayu di liggéey bañ a xeeb métier bañ a xeeb liggéey lu yàlla terewul nañ ci góorgóorlu waaye liggéey lu mu woom woom lu mu doon doon te yàlla gërëmu ko nañ xam ne amul njariñ ndax ab jullit day sàkk lu lew wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami sëñ Tuubaa nee na sàkk lu lew ni julli waré asaka waré ko koor waré ko ni la ñak tedd non la waré ko nonu gogolu ci daan suñu doole diko jaamu yalla di ci sam ngor ak diiné néna itam euh buñu liggéeyé ba amu tuut buñu ko foyé buñu ko yaq ndax liggéey ba yalla baxélé wërseuk nga foyé ko ci benn bis liggéey at wala ay at yaq ko ci benn bis néna lool nañ ko bayyi tan jabaro jafé jafé jafé go xamné ku xam dara lu néew new xam nga ne yàq moom warul wenn waxtu waaye waxtu wi la gën a war la gën a warati nee na xew-xew yi muy ngénte yi muy ceet yi muy dëj yi liñ ciy gaspillé kenn xamul lu mu toll nañu wàññi yàq yi bisi diine yi sax am na ci yoo xam ne am na yàq ak bis yi nga xam ne dañ koy dañ koy wutal mu solol ko mbubb mu mel ni diine te du diine nee yooyu nañ ko xàmmee te wàññi yàq yi nga xam ne moom lañ ci yàq nee na nag yow njiitu réew mi xam na ne yaa jabootu Sénégal yaa jabootu ñëpp te jaboot jàmmay mbokkam jaboot bu sañoon ak njabootam jàmm rek la ñuy am naataange rek la ñuy am xéewal rek lañuy am kon bu jafe-jafe amee Sénégal xam na ne xam na ne gënalu la waaye dafa daj ak këpp adduna yi am na yoo xam ne bitim réew ñoo ko sabab ndax ku yor yëfam di ko jaay dem ba yàgg mu ne nangam laa doon jaayee waaye léegi nangam mënutuma ko nangam laay jaayee loolu Sénégal mënu ca dara waaye wala ko yor yëfam ne maa doon jaay jaayatuma Sénégal mënu ca dara kon am na jafe-jafe yoo xam ne ci bitti la bàyyi waaye nag am na yoo xam ne ci biir la bàyyi ko yooyu mooy yi nga xam ni war war nañ ci gën a góor góorgóorluwaat yi bàyyi ko bitim réew mi ngi lay digal nga jëfandikoo ci fattaqullaha mastataatum waaye yi nga xam ne mooy jafe-jafe réew mi nag mi ngi lay digal ittaqullaha xaqatuqaatihi mooy xar ci sa tànku tubéy ba ñu xam ne def nga la nga man lépp la des ñu bàyyi ko yàlla kon yàlla doon na la dimbali nee na. sëriñ bi nee na euh, ngi ñaanal senegal nawet bii ñu tàbbi ci bisimilah rahmaani rahim nee na ko àggale ci alhamdulilahi rabil alamin mi ngi ñaanal Sénégal naataange naataange nag yàlla moo xam fa koo ko dëxëñ waaye yàlla na yàlla defal naataange. sëriñ bi nee na mi ngi dénkaane ñu gën a bennoo doon benn bopp. ndax neena doomu aadama yàlla da koo fonk moo ne wala xad karam bani aadama yàlla nag lu mu fonk soo ko fonkulee yaa ngi jaamu yàlla te doomu aadama li ko yàlla fonk fonk bind ko bind bu njëkk amul ñeenti tànk amul ay laaf rafet lool waaye day woddu jëm moo tax ñu mën koo xool ni ñu woddi suñu jëm nañ ko woddi suñu kàddu nañ ko woddi suñu jëf lépp dëppoo makaarimul axlaaq nee na su ma ko defee kon jàmm rek mooy xew ci réew mi ndax jàmm kap des koy sàkku soo ko amee da nga koy suuxal kon nee na góor góorlu ci fonkante wormaalante bëggante bu nu ko defee jàmm dana sax dàkk ci réew mi sëriñ bi nee na dëgg la de coow li bari na ci réew mi waaye coow li nanu ko sant yàlla ndax dan ko watal moo tax coow li bari waaye réew yi nga xam ne ku xëy da ngay defe ne doo yendu ku gont defe ne doo fanaan ñoom tal nañ leneen lu dul coow kon coow li nañu ko sant yàlla te xam ne jàmm rekk la sëriñ bi nee na bala muy jeexal nag day sant kilifa yi yi nga xam ne ñooy ay bokkam te fu mu musu taxaw ñu taxaw ci wetam di ko jàppale doon ab sagam doon ci moom kiiraay muy nag ñi wax ñëpp laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye nee na mënta ñàkk tudd alxaaji maam maam bu kunta mi nga xam ne moo mag ci ñi fi teewal waaye nag mënta ñàkk tudd ki fi teewal nag rakkam cheikh mahamadul mansour si mu cheikh abdul aziz al ibnu nee na mi ngi koy sant di jaaral ci ñoom ñaar nag cantam ba ngërëmam ci mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi jëmmal bis bi jëmmal la nee na amul seen pay yàlla rek moo leen mën a fay nee na li muy tëje nag mooy ñaanal Sénégal mooy xot ummat al Mustafa an kulli mafsadatin wal tarxam al xalqa yaa man jëddahum badaa yaa malik al mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa hadiyan radaa nee na ñi nga xam ne nag ñoo fi teewal seeni réew di xëy di kont ngir rattaxal seen réew ak Sénégal ngir yokk seen réew ak Sénégal ngir defar ngir bëgg ñu nekk ci jàmm ak salaam mënu leen a ñàkk beral seen cantuk bopp yuraxib al cheikh bi silk al al mawjud al hadir fi lqaa والذين يمثلون البلاد العربية والإسلامية في هذا البلد المضياف الشيخ يشكر هؤلاء السفراء على هذا الحضور وعلى هذه الحفاوة البالغة ويرجوكم أن تبلغوا تحياته وشكر وتشكراته إلى الدول التي تمثلونها في هذا البلد المضياف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته